asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci muharram muy weeru tam tamxarit di weer bi njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom ci weeru ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ñaar fukki fan ak juróom bokkul ci lim bi fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci talaata ci rafet na li ñu ci tera tera wàccandiku moom talaata mooy ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñaw ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wu nekk deesu ca yeggale ab sëy deesu ca tukki ñaanuk bis bi yow yàlla muy wëlbati xol yi yàlla na nga wëlbati sunuy xol jëmee ko ci sag topp allahuma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik allahuma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ragal leen yàlla te ngeen maandu ci seen diggante njaboot xadis bi buxaari nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum